jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi fii ñu nekk tey mooy Thiès Thiaye benn dëkk ñaari gaar bu ñu nee Thiès tudd Modou Anta mi nga xamante ni ndaysaan champion la boo xam ne day jugee Thiès di bëre si Dakar te lu mu guddi guddi day ñibbi siwaat fii ci Thiès tudd raay laay gote tudd ki nga xamante ni ndaysaan mooy champion yu bari bari yoo xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci dëkk dëkk bii di Thiès tey ki ñu fi woo di Assane njiital Bawol production grand combat bi dox ci diggante ñaar xale yi ndaanaan Mbay euh, Pape Mbay ak booy Jobaas mooy grand combat bi mu nekk combat boo xamante ne mbokk yi combat espoir la parce que tey mën naa ne Assane dafa jël crème de la lutte indi leen fii xale yi nga xamante ne làmb ci tund Bawol tund Thiès tund boobu wër ko yëpp am nañ ci moom yaakaar. Assane Ndiaye ñoom la jël dem boole leen ci làmb tey boo gisee stade bi nu mu mel nii nga xam ne boolewut ay como ay xale yu am mbooloo la boole ay xale espoir la boole dañuy dugg ci biir defal leen ko comme ni ñu leen ko daan defalee Ousseyn ma nga fële ca arène nationale combat bi dox ci diggante Maguette Seck booy Niang numéro de ak doomu Jalaaw combat boobu nga xamante ni tottal ren ci Papa Boy Djiné ak xale bi nga xamante ni mooy a bébé Bismi combat yooyu nga xamante ni daftal nañ ci yeneen combat yoo xamante ne neex na lépp di ko am ci wasaare làmb Baye Jile ngi cees Ousseyn nga dakaar sëñ Basirou nga terrain gaal gi ñun la ak yéen dañuy dugg ci biir wan leen lépp loo xamante ne ambiance la lépp loo xam ne cosaan la lépp loo xamante ne aada ak culture ak cosaan waaye sama gars yi amaguma xaru tabaski de leer laa leen wax xar bi amaguma ko de kaay. ñu ngi xeexaat boo jaxaw jël na tànk ba. jël na taxaw bi boo jaxaa jël na tànk ba boo jaxaa num nar jël na tànk bi maam Saal bot na ko rëpp na ndeysaan ñoom ñaar yegg nañ suuf jugaat maam Saal dafa mel ni mbërum tànk la maam Saal mbërum tànk la ndeysaan gis nga ko maam Saal mbërum tànk la boo jaxaawa ngi daw combat bi ndeysaan dafa bëgg a génn pour mën a xëcc maam Saal mu ñëw mu def ko lim ko bëgg a def Boy Jaxaw am na lu muy togg génnam boobu am na lu mu fas yéene togg ci diggante ak maam Saal wala maam Saal am na lu muy togg ah dégg nga ñu ci dóoral dóoral dóoral walaay pilum teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem walum teen la de ku ñëw ci pind ba ngay yem ndeysaan maam Saal. ak booy jaxaaw ndeysaan ndeysaan xëcc na ko daan na ko daan na ko caatu booy jaxaaw daan na ko caatu booy jaxaaw daan na waaye bi dina am lu mu wax ndeysaan averti leneen ki nga xam ne moom moo di Rose waaye bukki moom mi ngi tekki galaaj yi sànni rek xaw ma daa tàng xaw ma lu ci nekk ndaysaan ba tey diggante Rose ak ki xam ne moom mooy Bouki ndaysaan laa ilaaha illallah diggante Rose ak Bouki mbokk yi yéen a ngi gis bii bu wuree la ndaysaan li combat bu neex la diggante Rose ak ki xam ne moom mooy bukki Bouki li Rose bëgg la ko may ndax Rose daa bëgg a ci tànki Bouki te Bouki nee na ko fii fi naan ak ñax waaw ndaysaan diggante Rose ak ki xam ne moom mooy bukki ba tey ña nga jàppante ndaysaan ña ngay jàppante ñoom ñaar diggante Rose ak Bouki laa ilaaha illallah du leen dégg ma ne ko du leen dégg bëre wàllu ten la ku ñëw ca pind ba nga yem ndaysaan yéen ñëpp ci biti ngeen yem mbër mi dina toll foo xam ne du la dégg du la gis diggante Bouki ak yoo xam ne moom mooy Rose ndaysaan diggante Bouquet Grosse ku nekk yaa ngi jàpp di diglu ngir mën a def action ndaysaan diggante Ndiol ak Ndama la laa ilaha illallah Ndama yëgul waaye Ndiol yëgul Ndama diggante Rose ak ki xam ne moom mooy Bouki Bouki Diouf ak Rose ndaysaan ndaysaan ku nekk ngay diglu sa morom ngir la ngay def mën a yemb diggante Bouki Diouf ak ki nga xam ne moom mooy Rose laa ilaaha illallah ndaysaan laa ilaaha na Rose jël bu rëy Bouki Diouf daan na Rose jël bu rëy laa ilaaha illallah oh ëñ yëkkati tuur xalap laa ilaaha illallah Bouki ngoog Bouki ngoog a ngi noonu mooy euh, Lac Rose arbitre arbitre waat na combat ba ndaysaan ba tey booy jogo ak Lac Rose Lac ma ngay def déplacement latéral di dem di ñëw ndaysaan diggante Lac Rose ak ki nga ne moom mooy booy jogo ba tey yaa ngay léewtoo ñoom ñaar ndaysaan diggante Lac Rose ak Boy Diogo combat bi yàggagum na wuute gi fi jaar Lac Rose ak ki xam ne moom mooy Boy Diogo ndaysaan Boy Diogo ba tey moonu wan ginnaaw Lac Rose Boy Diogo ba ñoom ñaar ña ngay leewaatoo diggante Lac Rose ak ki nga xam ne moom mooy Boy Diogo Ndeysaan Lac Rose Boy Diogo Ndeysaan saan Rose ak ki nga xam ne moom mooy Boy Diogo diggante Lac Rose Boy Diogo ba tey ba tey ñoom ñaar ña ngay Ndeysaan. Ndeysaan Lagros. Lagros ak Boy Diogo laay laay la laa ba tey ca biti ah dellu leen ca biir. Ndeysaan. am na troisième avertissement ndeysaan Boy Diogon ki troisième avertissement arbitre soufflé waat na seen diggante ñoom ñaar Boy Diogon la grosse numéro 2 ndeysaan Boy Diogon la grosse numéro 2 booy jogo ak xam ne moom mooy Lac Rose ba tey ña ngay laay laay la laa booy jogo Lac Rose jàppante ne ñoom ñaar jàppante ne ña ngay bëre booy jogo Lac Rose numéro 2 génnaat nañu saako ya ayca ndeysaan Lac Rose daan na ki xam ne ni moom mooy booy Diogo. maa ngi xam nga leen la laal jël jël verre. ko bàyyilaat. ñëw Pape Mbaye naa la. waaw maa fay. maa yaa yam jàmm. waaw sant yàlla bu wér-wér. noo waajee bis bi. waaw ni ma ko rek. fii moom sama kër maam la. maa ngi nuyu waa Kees gépp di nuyu Sénégal yëpp. xam nga di ñaan sunu borom def si bis bi jàmm yàlla may ma ndam si kaw Boy Diobass incha allahu rabi. dina yomb. waaw ku xam Pambaye moom si a xeex moom xam ko si qualité bëre tamit xam ne laamu ji lu mu laaj rek dan koy jëfe incha allahu rabi. ñëpp bàkkee nañ ko ndaanaanu bëre la. combat bi xeex ak bëre lan moo ci sa avantage. ndaanaanu bëre comme ça veut dire comme lan. boo Diobass ndaanaan la ci wàllu bëre. maa ko daa ko bëre. maa ko yi dafa leer. yow bu ñu la woo ci xeex ak bëre ban nga gën a. te après incha allahu rabi di nga gis. naa ko dàq xeex. lépp. est mooy ngeen xeex 5 mun ngeen ko def. waaw baax problème moo ñu si moom rek ça dépend rek si moom. doo koy dégg. non fii moom R100 faga fii bu jeexee rek jeex na firi rek bàcc. ndeysaan kaay. ba tey combat baa ngi diggante Dictionnaire ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Faye laay laa Dictionnaire Boy Faye jël na tànk ba Dictionnaire Boy Faye jël na tànk ba laay laa xëy na laaj jël bu bon nga a gis fii. diggante dictionnaire ak ki nga xam ne moom moo di Boy ak Boy Faye laa ilaaha illallaah diggante dictionnaire ay laa kay laa jël ba la waaye ah. jël ba rëy na de xaw ma lu mën a xew jël ba rëy na lu arbitre di wax ndaysaan diggante dictionnaire ak Boy Faye lan la ca arbitre way wax ci seen diggante ñoom ñaar. Dictionnaire ak Boy Faye arbitre nee na kaay leen ngeen bërewaat bërewaat leen ndeysaan Dictionnaire ak Boy Faye arbitre woowaat na leen ay waay daw na génn ndeysaan xeex ca biti ndeysaan ma amateur yi déggal ma supporter yi laa ilaaha illallah ndeysaan diggante ak Boy Faye ba tey dictionnaire cokaas na Boy Faye Boy Faye moytul loxoy dictionnaire yi laa ilaaha illallaah dictionnaire njool na loxoy daa jot diggante Boy Faye dictionnaire na tànk ba rasu laa ilaaha illallaah Boy ak Boy Faye diggante Boy ak dictionnaire laa ilaaha illallah Boy Faye dictionnaire diggante Boy ak ki nga xam ne moom mooy dictionnaire dictionnaire ak ki nga xam ne moom mooy Boy Faye jàppante nañ na tekk laa ilaaha illallah mboot na ko waaye sa tuul dictionnaire ak Boy Faye ay waay Boy Faye daan na dictionnaire Mbete kuy dalal gone ci lal ndaysaan ndaysaan Idrissa Ndiaye sëtu lëg daawar bi ñu ñëw Thiès fekk la fi muy dëkk boo xamante ni ñëpp xamee nañ la ko tey lan moo waral sa teewaay ci làmb en billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq di nuyu le grand jaraaf di Cap-Vert rawatina Thiès gi nga xam ni moom laa yeewoo maa ngi nuyu waa Thiès gépp tudd Thiès gépp di la nuyu. lamb ji sa teewaay ci lamb. waaw lamb ji moom damaa ñëw seetaan si rek yaa ma gën a xam dañuy ñëw seetaan parce que dañoo bokk Thiès tamit ñu gis Assane Ndiaye ñëw fi di fi tëgg tey tey man ak moom xamante nañ depuis Russie ñu ñëw toog seetaan waaw ñu jékki-jékki benn moment di gis Idrissa Ndiaye mu ngi jaabante diggante Gambie ak Sénégal relation boobu lan la. waaw euh, relation boobu jàmm ak salaam rek la sa copain moo dox loolu ba loolu am muy jamaïcain mu doon sama waay doon sama xarit tamit waa Gambie nangul ma jox ma bopp ma fay dem di liggéey di faj soxla jaamu yàlla di dimbali population Gambie bi yëpp rawatina sax population Sénégal gi nga moom laa nekk. <laughs> mbër am na ci ñoo ci ñaanal ci làmb ji actuellement. waaw am na mbër boo xam nag mbëru R100 la te man R100 laa bokk dama koy ñaanal yàlla may ko ndam muy Pambay ñun lépp lu R100 bokk rek si lañ bokk ndax su ma ñëwee Thiès ba am fi li ma fi am yàlla waa r la te mbëru R100 la kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. dégg nga Pël géeju Soumbédioune bi ñu war a xar géej gi nga xamante ne nee nañ sa maam moo ko moom te yow xam nga ci dara. Kounkandé sëriñ bi nga xamante ne actuellement moo yore bësu réew mi. da koo war a xar jour tam xarit wala laan demee tam xarit. li ma wax rek laay waxaat ci kattanu yàlla du xar dara du def dara. billaahi wallaahi wa du xar dara su xaree ma tëjaat lépp du xar dara na ko fekkee ba ko sax. da koy xar labal ay noonam. déggul ma xanaa na ko fekkee ba tal ko na ko fekkee batal ko ci kàttan yàlla. samaam samaam lëg daawoon ngay sëtu lëg daawoon. tey Koungheul di ñaan kat ñëw Dakar euh, taxaw dëggal boppam ne jouru Korité jouru Tamxarit day xar géej gi ñi war a dem France dem France ñi war dem Belgique dem Belgique ba pare day labal ay noona maanaam sëriñ su ndaw. déggaluma jouru Tamxarit yéen journaliste média bi yëpp laay wax point de presse laay def biir Soumbédioune dañ koy xaar ba ba ba 5 heures du matin ñu fay doog a du xaar dara na fekk na ko fekkee ba tal ko rek. waaye demee ba ci biir mu changé destination. la mais moo ne day xaar kay ndax Sénégal réewu jàmm la bu ko kilifa yi ñaanee njëkk mu bàyyi nag. Koukandé amul benn kilifa bu yor numéro muy xalifa général Layen muy xalifa général Mouride muy xalifa général Tidiane muy xalifa général Ceneba Ceneba yi Ndiassane kenn amul ku si yor numéro amul ku ko si woo ko ñaan njëkk parce ñooñu dugguñu si affaire yi ndax li affaire bakkan la. mais daa mel ni yéen sëriñ si ay noonam ngeen ndax nee nga da ciy dugal ay noonam labal leen. ñun moom bu ñu def France yaa xayta yéen moom ku ci dugg bu labal la. xam nga yàlla suñ borom moo ñu sàkk dina am ñu bëgg dina am ñu bañ mais man noonoo maag moom defu maag moom concurrence bokkuñu sax yoon barke sëñ Fallou li ma mën mënu ko de. kon ñu joxe rendez-vous ba suuru tam xarit incha allah. c'est point de presse. déggoo lu ma naa ko may naa ko plateau su bëggee yeen ngeen organiser palaato man moom ñu dog may naa ko plateau comme nga neen may def. ah loolu kay bu bëggee na ñëw wasaare ñu def su bëggee biir këram. jaajëf jaajëf Idrissa. man bëgg naa xam lan mooy secret Baol production ba Baol fépp fu mu organisé rek tëkk sa bëri saaj ba réer lay doon. waaw sant yàlla rek xam nga lii euh, maanaam mën ngaa loué stade loué ay baas loué ay sees mais mënoo loué ay nit. nit ñi foog nga leen di jox lu neex. combat yi allah dañ koy topp Baol xale bu fi bëree am public xam nan la nga ñëw dakaar ñu xam la gën la xam. kon xam nga pour tànn vingt litres ñu bëre stade fees neex non dañ koo maîtriser moom wax dëgg yàlla. ma jaaxal sax d'habitude li ma dul gis ci làmb Dakar laa gis fii quatre heures fekk na mbooloo mi fees dell ci stade. waa sant rek xam nga doomu réew mi laa nag ba pare dëkk Bawol def fi événement bu toll nii faaw ñu ñëw te làmb nag amateur moom kenn nu ko nax dang koy jox lu neex rek mu yàq ay yitteem ñëw mais ñu ngi gërëm amateur yëpp ba fu ñu wootee ñu ñëw. rendez bi nag Diourbel la dañuy wàcc suñ tëbëskee ba trois jours dañuy wàcc Diourbel aussi tasaare ko waaw maa ngi soog a tëgg Thiès mu nekk première journée mu mel ni may gërëm waa Thiès yëpp nag Kajoor yëpp maa leen di gërëm non Thiès incha allah ku commencé mu mel ni kay xam nga nag dinañ dàbbali si kàttanu yàlla te buñ jëwaatee yeneen combat yu gën a mag yi lañ fi indi incha allah. xam naa ne bëgg na lamb te terrain bi aussi dafa neex. Kaolack ñi ngi may woo mais foog ma ñëw <laughs> foog ma dem Kaolack waaw. Diourbel trois euh, troisième jour Tabaski laa fay tëgg mbër ya fa man gën fa neex laa fa boole suñ demee Diourbel troisième jour Tabaski di nga wax leneen yow. laay laa nee nañ Renkum daje Boy Séeréer ak Clédor daje nañu ñoom ñaar Boy Séeréer Clédor daje nañu ñoom ñaar ña ngay xeex te ña ngay bëre laa ilaaha illallaah Boy Séeréer Clédor déggal amateur yi bi combat neex na Boy Séeréer Clédor laa ilaaha illallaah combat ba rëy na Boy Séeréer ak Clédor ñoom ñaar ci biir géew ba laa ilaaha illallaah ña ngay bëre ña ngay xeex laa ilaaha illallaah combat bi neex na Boy Séeréer Clédor laa ilaaha illallaah Ndaysaan combat ba rëy na jël bu rëy jël bu exceptionnel. Eh, Baye Djili bëgg naa leen non sama mafia bi ne tawoon seen kii waaw waaw waaw. luñ lay wax. non gars yi ma war daan waa ji mu jeex. la laaj. non bés bi dal parce que dëkkam la loo def rek dafa war a leer nañ ni midi. dama Pambay. ma ne ko ñëpp bàkk nañ ni booy jabaas ndaanaan la ci bëre mu ne maa ko dàq bëre téeméeri junni yoon <laughs> day wax lu ko neex rek buñ duggee na ma wan man bëreem buñ duggee xeex mu ne moo la day sóob day naxante rek lu mu wax gëmu ci dara lu mu lekk tey fii ma yóbbu ko <laughs> est-ce que dégg nga wax ji. lu mu lekk ma yóbbu ko. fu ma bëggul wax nag. <laughs> mais ñeme nga taxaw moom sampu jaar alxuraan te séeréer saafeen la la laa lay tegal amul arrière man maa ngi fii ci suuf dafa réere mbir pour moom man booy taawoon laa ñëw nañu agressé booy nii man ci suuf fii laa dëkk ci descente bi ci kamba bi mais fekk si nit fi mu dëkk ngay bëre moom yomb na non yombut parce que espion yeeg yëpp day pare ah yàlla rek moo la mën a jàppale mais gëm nañ ne dañuy am lu ñu bëgg incha allah parce que liggéey nañ ko ci lépp ah waaw suñuy mbokk ñaanal nañu suñu am di jàmm xarit yëpp a ngi nii ñoom Tonnerre do ñoom Zal Ndengler gars yi jógee ba gis nga gars yi ñoom Caatu Joobaas Sa Joobaas ñoom Grand Moussa ñoom Fils de Mbaye Cissé yoro ñoom yokk coow gars yëpp gisoo gars yëpp Dakar lañ jógee ñëw. ñëw ci bés bi moo tax warul daal fi toll yow la ñuy déglu yaa leen wala libéré te naa leen lett lett rafet te ba mu mën Tabaski incha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm. Jobaas. waay jili maa ngi nii de sama doom taay da ngaa jël sa yoonu bopp wax sama doom loolu sama waay nga yow sama waay loolu yàlla dogal na ko ba pare yow barke Serigne Touba góor yàlla nga amagoo combat le 7 août maag bu Grand Médine arène nationale waaw ku tëgg loolu père moo ko tëgg Khadim Samb eh, loolu dina bés la bu mag bés bu mag a ngi noonu bés baa nag yàlla may ndam rek maa ngi ñaanal sama doom de yàlla may ko ndam tey lu sedd guy Alboury de moom gaynde mer la fanaanoo waaw may wërëy na mën naa wax trop mais bu bés baa ñun jëf lañu lañuy wane quoi duñ wane wax wax dëgg yàlla kenn xamee ñu wax liggéey rek làqu comme yow ni nga ko waxee soxla ñu wax liggéey rek barke Serigne Bamba bu soobee yàlla bàyyi ji nii baax na après dinaa fa ñëw ñu gën a yaatal na dinaa la woo incha allah loo def maa ngi fi rek yaay kan man maay bukki bu joobaas amul leneen bukki sànq bëri nga combat bu rëy. waaw noonu lañ ko programmé moo tax. ah lan nga jël turu bukki bukki moom mooy lan. non benn tur la nii rek xam nga rek muy rëbëkat laa quoi moo tax. bukki bi la ko indi waaw rëbëkat laa quoi. waaw loolu moo tax quoi. boobu nga doon def moom nga indi ci làmb ji. waaw waaw moom laa bëgg a indi ci làmb ji quoi. bu mbëri benn par benn. waaw ni ma. rëbb nga ñaata mbër. Hmm? man bi mooy sama premier combat quoi di ko sant yàlla quoi. premier rëbb nga jàpp. waaw gis nga. bukki say bukki say affaire. bukki du Oh, waaw. jaajëf bukki kon baax na. waaw incha allah. <laughs> jaajëf waay ok merci. ok mbër. waaw. kon soo ngi noonu. ndeysaan. ma def lii dama woon gars yi nii jiiri lii ñëw ci kanam mooy dàq dama woon gars yi nii man gaynde gu blessé laa te barki alxuraani karim jiiri fin saison bi da nga kontaan billahi wallahi wa taalaay man man maa la wax loolu crime crime mooy la rey nit gaynde gu blessé xam nga ni baaxul Babel itam bu amee lu muy wax di wax dëgg yu bëri barki yaa Rasulullah combat bi doon ko sax préparé fii combat bi Niger laa koy préparé Dosso. jóge dem Afghanistan. Eh, bul jooy ah bul jooy Kalso bul jooy Kalso ma ngay jooy jooy la. xol ba rafet. waaw jàmbaar la ci yow. jërëjëf Assane Assane xol bi tooy na. ndeysaan xol bi tooy na. ndeysaan Pape. waaw salaamaaleykum. mbokki Thiès maa ngi leen di nuyu. maa ngi nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp. commencé ko sunu jëwriñ Serigne Saliou Touré mi nga xam ni moo ñu fi nekkal. teg ca El Hadj Mounirou di nuyu mboolem kuy jullit ku nekk ci dëkk bi di nuyu kilifa yëpp di nuyu premier magistrat de la ville di Talla Sylla mi nga xam ni moom lañ jël tey ji bis bi tuddee ko ko benn kàddu rek laa am bu may wax mu ngi may décorer mais man sama rakk ji laay gërëm Mamadou Kaay non mu ñëw c'est-à-dire amul ndombal tànk bu mu amul ci dëkk bi te yëpp moo ma ko jox groupe baax dafa ñëw Thiès ñuy xeex lépp luy violence ci sport mu ni ma ñëwal jiite ko moo tax ma nekk cherge de lutte moom moo tax ma nekk manager moo tax tey ma ñime bay def lii les amis de la lutte mooy ex groupe baax kon kii aw fayam bis bii tey bu fi dara jagee moom mii la ak rakkam jii di Ousseynou di manager ambulance suma rek donte que maay magam mais Ousseynou mii mooy manager am man du ma dara ci moom waaye lépp mooma waaye nag kii di soxnaam it wax dëgg yàlla aw ma fayam kii nag duma ma ko gërëm dama koy ñaanal ndax sama soxna la kon wasalaamaaleykum may sant Assane bu baax ndax confiance dafa dafa dafa fort alal ju bari la yëkkati ay millions yu bari teg ko sama loxo xamul sax lu ma ciy def mbëri ñëw fii amul kenn kum ci xam kon vraiment moom it kenn gënu koo gore may tàllal loxo waa Thiès lépp loo xamante ni rek lu mun naan la ci àdduna moom Assane yàlla na ko eggale ak sagoom jërëjëf. général Diouf ak euh, ndeysaan macha allah Général am na lu mu rëdd ci suuf day dox ci koom ndax conseil bi ñu ko waxoon da koy def moom Général Diouf ikiri Mbour la nekk ci Bombardier le B52 de Mbour am nga bis bu rëy sa diggante ak Balla Gaye 2 ndeysaan mu ngi noonu Général Diouf macha allah ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi demee wet ndeysaan ña ngay demee wet général Diouf macha allah ñu ngi noon ndeysaan arbitre bi nee na ko taxawal nee na macha allah taxawal bëre nee na ko taxawal bëre cokkaas na cokkaas macha allah général Diouf macha allah général Diouf ñoom ñaar fu ñuy mujj macha allah ngi dox ci koom ndànk wala général ngi dox ci koom ndànk macha allah di rëkk de. macha allah taxaw benn place arrangé ko ci combat bi waaye fi mu jëm baaxul ci moom lu ma la waxoon saa yoo demee pied droite général da lay dóor coup crochet ndax da ngay moom gauche nga war a jëm sa gauche ba ngay jëm fii yaa ngi dem ci droite général macha allah général mën na laa dóor nga daanu. làmb kay lu ma la jox takkal téere na jëli ko pakete na ko séen na ko da koo jàpp doole doxul jàmm jàpp na jàpp na. dina ko daan daan na ko daan na ko daan na ko macha allah daan na général Diouf macha moom la Moussa la maire yónni muy taal si la Assane Ndiaye kii la dara jaale bis bi ndaysaan moom la jël grand comba bi ñëw ci Thiès Thiaay benn dëkk ñaari gaar dara jaale ko taal si la mu nekk kenn koo xamante ne responsable politique la APR fii. ci Thiès mu doon koo xamante ne vraiment reconnaître nañ ko ci réew mi xam nañ njàmbaaram xam nañ bëgg Thièsam xam nañ bëgg zone su Thièsam tey bëgg sa bëgg sa gox wala bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk loolu yéen ñu ko gën a xam délégation bu riche baa ngi noonu léegi nag kon ñu ngi waaj a ñëw ci grand combat bi léegi dox ci diggante booy Jobaas ak Pape Mbaye hommage ñaari mbër yi mu ngi leen wax li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante booy Jabaas ak Pape Mbaye mbokk yi ñu ngi noonu fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ki ñu fi woo di njiital Bawol production moo ñu fi woo ndeysaan muy combat boo xamante ni da koo génnee ci réew mi wala boog da ko génnee ci département bu Dakar indi ko fii ci région bu Thiès ndaysaan ñoom ñaari ngi noonu arbitre bi mu ngi wax ak ñoom ñaari mbëri laaj na booy Jobaas laaj na Pambay Pambay nee na pare na arbitre bi sifflé na mbokk yi ndaysaan ñu ngi ci samedi ndaysaan 10 juillet nday ndaysaan ñu ngi fii ci hippodrome Ndiaw ma kodd ndaysaan ki ñu fi woo di Assane Ndiaye Baol production grand combat baa ngi noonu dox ci diggante Pape Mbaye ak Boy Jobaas Pape Mbaye moo la féetee càmmoñ moo ndeb tent bopp ba moo def ni rasaya Boy Jobaas moo la féetee ndi joor moo ngemboo ngemb la ko Jobaas am na lu muy léemu am na lu muy wax kàbbar na moom Boy Jobaas kàbbar na seere na la pataake bi téye ci loxo bi sukk na oom bi ndaysaan moom Boy Jobaas ma ngay lewaatoo yàgg di ngeen laale lii bu ngeen ko njëkkee du ngeen ko mujjee stratégie la booy Diobass déplacé wu na dem gauche wala droite wax naa ko ndaanaan la ci làmb moom Boy Diobass bàyyi leen ko xel ndaysaan waaye yaa ngi fekk si koo xamante ni dëkkam ndaanaan la muy Pape mbay Pape mbay xam nga ni combat bi am na fu mu ko toll ndax boo ko fekk see ci dëkkam li war mooy mu concentré wu bëre combat bi ba ko ci yàlla mooy mu jël Boy Diobass tamit noonu la fas yéenee def mbokk yi nañ dem ci làmb ji xool. fan la wànnante di mujjee ki gëtam ñoom ñaar gis nga booy Diobass aj na loxo ndi joor bi añ na ko waaye ma ngay léemu ba tey booy jabaas ndaysaan Pape Mbaye koy déglu ndaysaan Pape Mbaye koy déglu bu soofee rek mu ñëw mbay Mbaye ngi dox ndànk mu ngi dox ndànk day ñëw Pape Mbaye ngi dox ndaysaan mu ngi dox ndànk waaye booy Diobass a ngi taxaw ci axe bi di ko xaar ragal naa dinañ xeex ñoom ñaar Pape mbay arrière na ci diggi géew bi arbitre bi woo na leen da leen di wax kaay leen ngeen laale indi wuñ leen fi pour ngeen di xool dañ leen indi pour ngeen xeex bëre ndaysaan loolay làmb ji ndaysaan loolay làmb ji arbitre bi sifflé waat na booy jabaas ak Pape Mbaye Pape Mbaye moo la féete càmmoñ booy jabaas moo la féete ndijoor ñoom ñaar a ngi noonu Pape Mbaye wàcc na di dox ndànk ci kaw booy jabaas booy Diobass daa teen tolloog moom booy Diobass a ngi sëgg tuut ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk am na loo xamante ni sa avantage la ci combat bi ndax ku ci nekk mën naa am loo xamante ni war nga ko mën a def ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu mu dox ci diggante Pape mbay ak booy Diobass ñu ngi fii ci hippodrome Ndiaw ma koddu kodd ndaysaan ci Thiès caay benn dëkk ñaari gaar may nuyu képp koo xamante ni autorité nga fii ci Thiès di nuyu képp koo xamante ni comédien nga fii ci Thiès di nuyu képp koo xamante ni mbër nga fii ci Thiès ñu leen di jaajëfal bu baax di wax ni Ndakaaru ak Thiès benn la Sénégal ñun ñoo ko bokk mën nañoo xuloo mën nañoo xeex waaye mënuñoo xastante ndax ñoo bokk réew mi ñaari xale yaa ngi noonu. tey Assane Ndiaye fu ne lay jëli jee xale yi tey Bawol production fu ne la leen di loqatee ndeysaan ñu ngi noonu Pambay gi dox ndànk ne na ko taxawal Pambay stratégie la wallaay li booy di def gëmu ko sax liiral sa combat jàkkaarloog moom avertissement déet arbitre déet déet arbitre ah waa jaadu na jaadu na avertissement bëriwoo jaadu na arbitre jaadu na ndax ñoom ñaar dañoo war a laale booy jabaase ngi dox ci koom ndaysaan daa bëgg combat bi jeex pambaay am na lu muy sol for na xeer sànni ci biti wala gàllaaj la ndaysaan tey <laughs> xale yi ay phénomène lañ pambay booy jabaas pambay booy jabaas booy jabaas daa bëgg a dem booy jabaas daa bëgg a dem daa bëgg yëkkati loxo bi mu jiwal moom daa bëgg dem lu ma la wax Pape Mbaye cokkaas na Boy Diobass daa bëgg a ñëw waaye Pape Mbaye mayu ko ko reculer bee tax Boy Diobass moytu na moytu na coup dóor na Boy Diobass dóor na coup boobu dal na coup boobu dal na ndaysaan coup boobu dal na ndaysaan boo bëree sa dëkk loo def public bi yuuxu ñaari xale ngi noonu ndaysaan gisuma Zal Ndengaleer waaye xam naa ni lekkut naanut <laughs> làmb gi nii dóor na ndaysaan booy jobaas fay na jàppante nañ moog Pambay booy jobaas sol na sol na Pambay booy jobaas sol na Pambay Adama booy jobaas sol na na ko Pambay bañ na booy jobaas lu mu bëgg lan la nar génn na ñu ngi jege saako booy jobaas dóor na benn uppercut dóor na benn uppercut téye na Pambay téye na ci téelo loxo bi. tee na ci téere ndomba loxo bu ba Boy Jobaas Boy ngi dóor ci suuf Boy Jobaas ngi dóor ci suuf Pambay ndaysaan jàpp na waaye ci téere la pataake ba jàpp bi ne ci biceps ba ñoom ñaar fan la ñuy mujj Pambay yoortu na ngemb loxo ndi joor bi jàpp na Boy Jobaas jàppul waaye Pambay jàpp na. Boy Diobass ci sengooru ndigg li la jàpp ndax foofu wóorut ndaysaan ñoom ñaar booy Diobass ni mu wàccee bari na lan la bëgg ñoom ñaar ni ñu wàccee ci suuf jege nañu suuf dóor na percute bu dal Boy Diobass dóor na fàqat na ko Pambay fàqat na ko Boy Diobass bañ na yegg nañ suuf rëpp ñaari oom jugaat combat bi du yomb. ndaysaan booy jobaa koy pompe ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu Pape Mbaye lan nar arbitre bi àtte na mbaalu ardo Pape Mbaye toj na booy jobaas yóbbu na ko ardo booy jobaas yóbbu na Pape Mbaye ardo ndaysaan mu ngi noonu jege si nañu ndaysaan lii de mooy sa gémmiñ xonq te doo yooyu guro ndaysaan booy jobaas dóor na booy jobaas wii dama ragal nekkatul booy jobaas grand jabaas la lara doon kii dóor yi métti waaye du mujj foofu de Ndeysaan arbitre bi woowaat na leen ñaari mbër yaa ngi noonu sifflé waat na dox ci diggante Pape Mbaye ak booy Diobass Pape Mbaye dem na ardo ba ñëwaat dellu si na changé na combat dox na ci kaw booy Diobass combat bi day gaaw Boy Diobass dóor na ña ngay xeex kurpañe takkar naase na daw nañ jàppante ñoom ñaar Boy Diobass dóoraat na beneen upekit ci suuf mbër mbër ngi nii de bu la dóoree nga dem ardo fi nga dóoroon lay dolliwaat gis nga Boy Diobass a ngi ci suuf téere Pape bi neexut a bàyyi ndaysaan fa mu jàpp tax booy jabaas Pape booy jabaas Pape Mbaye Pape Mbaye ngay yóotu booy jabaas da ngay dóor ña ngay xeex Pape Mbaye booy jabaas jëli na ko laay laay la Pape Mbaye daa sonn wala déet Pape Mbaye ngay xeex booy jabaas jël na ko Pape Mbaye na relance relance Pape booy jabaas Pape booy jabaas Pape Mbaye Boy Diobass ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar Boy Diobass Pape Mbaye Pape Mbaye moo ne woon ginnaaw Boy Diobass ngeen jàkkaar lool indi nañ giite ŋaas léegi ñoom ñaar weccante ay coup pañ dellu si waat Pape Mbaye Boy Diobass Pape Mbaye Boy Diobass ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu Pape Mbaye Boy Diobass ndegeñante nañ ku nekk ngi déglu Pape Mbaye Boy Diobass bi nee na tekk déggatoo géwël déggatoo tëggkat déggatoo lenn waxkat yi rek ngay dégg ak Serigne si yor seeni kurus di wér <laughs> làmba ngi ndaysaan ndaysaan Pape Mbaye Boy Diobass Pape Mbaye Boy Diobass lii lii lii kenn xamul ci lu mu bokk Pambay Boy Jobaas Pambay Boy Jobaas lii mooy lan Pambay Boy Jobaas lii tamit kenn xamul lan lii kenn xamul lan ah, nan ngay ànd mbër di wër di ñëw ba ci cimikaayu jàmbur di xëcc dara di dem lii tooñ la lii tooñ la lii tooñ la parce que yoo xamante ni rafetul ci làmb nan ngay ñëwee fekk ku ànd ak mbër jotewul ak yow dara. ngay xëcc ci yërëm wala ngay xëcc leneen ah? ah lii kenn xamul lu mu doon à ah, chaque fois ñuy ànd ak mbër ñoo yàq làmb chaque fois mbër yi dañuy nekk ci li ñu war a ne waaye ñiy ànd ak mbër yi ñoo yàq làmb chaque fois ñooy ànd ak mbër ñoo yàq làmb xoolal lii xoolal lii ndax ku jugee ci ci meekaay bi Adama jëlal ma kële jëlal ma kële Adama jëlal ma kële lu jiij njaag kële mooy njaag lu jiij njaag kële mooy njaag lu jël njaag kële mooy njaag looy dem ci ci mikaayu jàmbur looy wutali mbaru jàmbur lu ciy sa sa mbër nga indi regleel yem ci place am bëre lu ko yàlla may nga jël waaye dem di tooñ wala dem di tapas bokkut ci làmb déedéet bokku ci arbitre bi combat baa ngi noonu dox ci diggante Boy Diobass Ndaysaan ak Pape Mbaye Boy Diobass nga koy am lu booy koy faxas Ndaysaan Boy Diobass ndi joor Pape Mbaye càmmoñ Boy Diobass ndi joor Pape Mbaye càmmoñ ñoom ñaara ngi noonu ñu ngi noonu ñoom ñaar. Ndeysaan ñu ngi noonu. booy Jobaas ak Pambay. combat baa ngi noonu ñoom ñaar Boy Jobaas am na lu muy dugal ci ngembali. ma ngay ñuuxaat ngembali. Boy Jobaas Pambay. ñoom ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo ba tey. Pambay pied gauche. Boy Jobaas pied gauche. ñoom ñaar garde normal la bu ñu xeexee di nga gis xeex bu neex waaw waaw ndax ku ci nekk góos ngay cokkaasee doog indi arrêt de droit boo jabaa sànq attan nañ mu ne def leen ndànk dama am bopp na jëli ko boo jabaa jëli na ko Pambay daan na wala déet Pambay daan booy jabaas Pambay daan booy jabaas Pambay daan na ko Pambay daan na booy Jobaas mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax gis nga làmb booy sotti nañ ma saafara sotti nañ ma ba ma tooy mais loolu yëpp làmb la ci làmb la bokk ndax ñun ak ñoom ñoo far mbokk yi ñuy jaajëfalaat bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Baol production di Assane Ndiaye ci innovation bu rafet bi nga xamante ne def na ko jël làmb indi ko fii tey ci Thiès Thiaye am na beneen xale boo xamante wane waat na boppam ci wàllub làmb muy Pape Mbaye paam mbay bëre naag Boy Jobaas daan ko jël bu amul benn werante parce que nekk ci sa dëkk di bëre dafa metti Boy Jobaas ndaanaan nga ci làmb li nga waroon def yëpp def nga ko xeex nga bëre nga defet moo ñëw te làmb nag bisu ñàkk du bisu ndam bisu am du bisu ñàkk da doon ñëw wut si Pape Mbaye ñëw di wut si yàlla may na ndam Pape mbay ñu ngi koy félicité bu baax di félicité képp koo xamante ni doomu Thiès nga ci ndam li nga xamante ni Pape Mbaye am na ko di leen jaajëfal di wax ni mbokk yi ñun ak yéen doolay jën dox doolay waykat public doolay wasaare lamb yéen la damaa bëgg ngeen di abonné di laal notification bi di ma gën a dooleel di dooleel wasaare làmb mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb eh,